wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi nuyu bokk fi teew yépp ak ñi ñuy teewlu fu nu mën a nekk sedd na ci turu Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda di jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall waaye di jottali ab nuyoo akub ziar mu jaar ci Cheikh Modou Bachir ñuy toog te jox nu ndigal jox nu kàddu ngir nu wax jëm si sangam ba Cheikh Modou Muntaxa ñu ñaan sunu borom yàggal ak dundam te wéral ay cëram yéene ji mu am si liggéeyu sëñ Tuubaa mu def si lu kawe njot te ànd kook murit yépp di jot li nuyoob sëriñ bi akub siyaaram mu jëm si mbooleem njabatug sëñ Tuubaa gi mboolem ñi nga xam ne ñoo teew fii di ay kilifa te sëriñ bi dénk leen liggéey bu màgg bi nga xam ne amuñu lul moom ñu nekk si ni ko sëriñ lu waxe waajal bis bi saa su ne